mbokk yi gannaaw jéego yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ci at mi ñu génn yemook yóbbu askan wi ñu dem amal seen umra ak ziar seen agence de voyage bi ngeen taamu di safiir service delsiwaat na di beesal kóllëreem ak yéen ci dem amal umra ak ziar fële ca Medinatul Munawara li ni mel ñu tëgg ko ci ay départ yi nga xam ne jàpp nañ ko ci weer wu nekk seen kër gi di Safir service di leen gunge ak ay guide religieux yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàll gi ni mel ay professionnel yéemut foofu ndax dina leen jàppal tamit ay logement di ay dëkkuwaay yi nga xam ne yu bakkane la fële ca Médine ak ca Màkka ngir ay xibaar yu gën a yaatu mën nga leen a jege fële ca Kër Massar unité 4 villa numéro 912 Dendek plateau médical Serigne Saliou wala nga jokkoo ak ñoom ci 77 116 78 78 mën nga jokkoo ak ñoom tamit ba léegi ci 78 186 71 71 seen kër gi di Saphir Service di leen gunge tamit ci li nga xam ne dafa jëm ci jënd billet d'avion ba ci calcul ci li nga xam ne dafa jëm ci héritage ca nam dëppoog ak l'islam Saphir Service yéen la fi nekkal jafe-jafe ci dem amal umra ak ziar jeex na tàkk ak kër gi di Saphir Service. Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ne da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier dangay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci adduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ci Mbour Tivaouane Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ci adduna bi fekk ko fa ndax qualité yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jegleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp ngeen ci ànd ak al ustaaz abdallah baaba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di alfatawa way leen di yónnee seen ay

alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi nga xam ni yéen a ngi nuy topp ci seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana docteur Mouhamed Ahmed Lo xafidahullahu waraa tey ci àllarba ji ñu ñëwaat yéen seen émission alfatawa bi nga xam ni yéen a ngi koy topp ci leeral fm bi ci Louga ak keppaar ga ca Kaolack ak salaam ba ca Mbàkke ak leeral ba ca Ziguinchor ak leeral ba ca Podor di ko topp ci réseaux sociaux yi moo xam-xam sa diine xam lu sa diine dégg diine ak yeneen yëpp rek yi nga xam ni yéen a ngi leen ci topp ak euh, ci site yi moo xam Isma Pro la wala Fafa wala kiw euh, dermalo officiel wala sax ci groupe bu WhatsApp yi nga xam ni mooy yu uh, soppay fatawa docteur Mouhamed Ahmed Lo ak yeneen ak yeneen ak yeneen wala ci Facebook bi wala ci fu mënti doon ñu leen di ziar yéen ñu ñuy topp ci biir Sénégal ci biir Afrique ci biir adduna bi yëpp ñaan yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko defal ko cheikhana kon cheikh bi ñu jox la nga ibbi ñu doogay jukki lenn li fi rot ci laaj yi barakallah bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu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 mooy ab violence boo xam ni mi ngi ci milieu sport bi ci làmb geeg ci newataan beeg yooyu yëpp nee na mu gis ni fatawa ñi koy déglu bari na lool te yaatu mu ni daal bu sañoon nga def ci ab euh, laaye biir boo xam ni danga koy jëmale askanu Sénégal ci maam yu demee noonu fo yooyu daal ak euh, yi ci am yooyu yëpp mu ni daal soxla nañ ci laay biir boo xam ni dafay jóge ci docteur Mouhamed Ahmed Lo jëmale ko ci askanam alhamdulilah xam naa laay biir gu ci wàllu tartar yi am ci ndaje yi day ndaje sport yi ak yu moom euh, du weesu rekk ñu xam ne jamono ji nu nekk dafa mel ne ndaw ñi dañoo gëj a dam maanaam seeni xol dafa tàng ànd ak xat loolu nag li koy gën a faral di indi mooy ay naqar yu dajaloo ci xol euh, goo xam ne nit ki ab xolam day tàng ba day mere ku ko deful dara loolu nag aw dundiin wu metti mën na koo indi xam-xam yu gàttit mën na koo indi euh, yooyu di am xëy na dafa gën a fis ci bérébi sporukaay yi muy làmb ja nit ñi di daje ak fa ñuy daje di fa football wala ñu fay def leneen waaye daanaka foo ko làmbitam rek danga ko fay fekk bépp béréb bu dajewukaay boo xam ne ay ndaw dong nga fay daje néew nañu daje fa ba tàqalikoo te fitna amut loolu nag jàpp naa ne laay biir moom lu war la ci ab jullit waaye saafara sa dëgg dëgg dëgg war naa gën a xóot loolu jaadu na nun ci sunum réew nu taxaw xalaat lan moo tax réew yi ci àdduna ñi ngi daje seeni ndaw a ngi sport ñi ngi def seeni ndaje ñi ngi def lu ne te fuñ daje danañ fa toog ci ak civilisé def la ñuy def ba mu jeex ñu yeewi ku ndànk dem boo fa déggee benn accident bu am bala nga koo déggati mu yàgg lool lu tax nun nu dem ba saa bu ndaje ma amee ñi fonk seen bopp sax dañuy wax ne man foofa duma fa dem ndax xam naa lay xew bu tasee loolu lu tax question boobu yi responsable yi diine yi ak responsable yi adduna yi war nañ ko jëmale ci seen bopp ginnaaw ñoom ñoo war a yar ndaw ñi ñoo war a ñoo war a jubbanti askan wi jàpp naa ne njàng mi ci boppam aaja na xoolaat bu baax a baax ak yar bi nga xam ne moom la yar ndaw ñi média bi ak jumtuwaay yu xarala yi ñuy jëfandikoo aajana xoolaat bu baax a baax ndax lum ci mën a doon rek luy tabaxi ko da cay jóge luy yàq jikko it da cay jóge su fekkee dañoo bàyyi ndaw ñi ak seen bopp rek rek ci lépp kay jàngale amatul ci moom responsabilité ka ko jiite amatul ci moom responsabilité waxuma la ak ndey ak bàyyi walla kër gone gi mooy former boppam mooy yar boppam mooy dugg ak génn ba mel na ko neex di dajeek ay moroomam ñuy indi seen jikko yu ñaaw di ko weccente ba ànd di ko dund loolee ci li indi jafe-jafe bi ci la bokk te saafara dara moom faaw rek ñu xam sabab ya leneen li ci des mooy former nit ñi ak tàggat leen bañ am ay métier ndax ñu mën a liggéey ndaw li yor métier yor ab liggéeyam yor responsabilité boo xam ne bu génnee am xelam ca lay nekk bu wéetee di xalaat ci luy taxub liggéeyam jëm kanam kooku tëluta nekk di toj walla muy song ay nit di nangu la yoroom kon tàggat nit ñi même suñ jàngut sax ñu tàggat leen bañ am métier ñu wutal leen ay métier ñu dem liggéey loolu ci saafara yu mag yi ci la bokk waaye nii ñu mel yor sa loxoy kese jàngoo ba noppi yareesu la ba noppi amuloo formation boo xam ne amee nga ci métier ah lu mel noonu ci askan moom boo ci amee ñaar ak ñett doy na waaye bu demee ba nag la ëpp ci mbooloo ma ca ndaw ña nag noonu la ñuy bëgg a mel su boobaa nag loolu menace la bu réeré ci askan boo xam ne ajara xoolaat nag bu baax a baax jàpp naa ne fépp fu benn école nekk boo xam ne day jàngal nit ñi làkku tubaab ci nii ñu koy defee ci suñ école yii wala sax bu la neexee nga ne làkku arab war naa am ñaari santar yu nekk ca wet ga yoo xam ne dañuy jàngal nit ñi métier su fukk nekkee fii ne ñaar fukk nekk ca ñuy jàng métier ndax gis nañ ne ñiy jàng làkk yi di ca yam rek kat seen njariñ ci réew mi moom wax dëgg yàlla bariwul waaye métier ya nag ña nga xam ne dañuy jàng yor métier su fekkoon ne xarañu wuñ ay làkk yu bari sax li ñuy liggéey moom lu teew la loo xam ne nit mën na ca teg bët mën koo jariñoo jàpp naa ne daal yii yépp su fekkee dellu nañ ci jàngalaat nit ñi yar leen wëlbatiku jàngal leen ay métier fexe nag ba yar boobu ñu leen di yar ñu fexe ba bañ caa génne mbirum diine ndax kat nit ki yar ko ci diine mooy yar ko ndax ki dem ba xam ne moom mii su jalgatee alali nit ba jël ko am na bàkkaar bu mu ciy jële boo xam ne mëneesu ko ko jéggal te du alali jàmbur ji mu jëloon da ko ko delloo te bàmmeel a ngi ci kanamam di ko xaar ak la nekk ca bàmmeel ci ay jafe-jafe su gëmee ne alal jii mu jël lu yàgg-yàgg dana ko mas a fay boroom su ko ko fayul fii ci àdduna dana ko ko fay ci bàmmeel yar boobu suñ ko defee ci nit ki dana maandu ci alali jàmbur du agressé kenn di jël alalam di ko yóbbu bari aana tey koo xam ne daana def ay njaaxum ba tuub li ub boppam mooy alali jàmbur yi mu jëloon fan lay jaar ba fay leen ko xamatul seen boroom xamatul kan la faagaagaloon bakkanam xamatul kan la jëloon alalam te alal yim jëloon yépp seey na yoratul dara wëlbatiku na nag tuub na bëgg naa dellu ci siraatul mustaqim xam na ne borom bi tabaraka wa taala bàkkaar yam koy jéggal mooy bàkkaar yi doxoon digganteem ak yàlla waaye bàkkaar yi doxoon digganteem ak jaam ñi jaam ñi rek ñoo ko ko mën a jéggal te ñooñu xamatul ñu mu doon te kiit xam na ne bu ëllëgee lam amoon ci ay tuyaaba loolu la ñuy jël di ko faye ñooña su jeexee ñu jël seeni bàkkaar di ko ko faye suñ noppee wat ko yóbbu sawara ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee kon tuub jot na ci képp koo xam ne danga doon jalgati te jéem a jàngi métier jéem liggéey jéem a am jom te xam ne alali jàmbur du alal naam jazakum allahu xayra baarakallahu fikum cheikhana cheikh bi kii nee na dafa am ñaari waajuram yee sa papaam daan ko defal lii saa yaayam ni ko defal lii ñoom ñaar loolu ñu ko def loo maanaam du bokk il faut benn rek la ci mën a def donte nag kenn ku ci nekk lam ko wax nekkul lu xaraam nekkul tamit lu ñu sib mais dañ nekk rek ci mbir yu ay ay choix ci yuñ ci àdduna ak yooyu nee na bu boobaa nu muy def yaayam ni ko lii laa bëgg nga def ko baayam ni ko lii laa bëgg te bu ci nekk nekk lu dagan te mënut leen a boole. ndax dañuy xaw a wóotante bu boobaa nu muy def alhamdulilah ñaari waajuram kii naan ko defal lii kii ne ko defal lii ci même waxtu wi ala kulli xaal li muy wax nii am na leneen lu lalu ci suuf loo xam ne lu aaja saafara la ndax ñaari mag ñu nekk ay mukallaf nekk ñaari waajur itam eh, am na nuñ war a dunde noo xam ne duñ fekk génn jëmm ci wenn waxtu kenn ku nekk génne ndigal di ko jox loolu mën naa ñàkk soxla yi benn mu nekk loo xam ne lu urgent la loo xam ne dafa taxaw mënees ko bañ a def fi saa si léegi te kam aju ci moom mënalu ko boppam te doomam mënal ko ko am soxla soo xam ne mënees na koo def léegi mënees na koo def bu ca kanamee su boobaa ñoom ñaar ñooñu di yaari waajur yi war nañoo mën a muñalante ba li jàmp ka ko yónni mu dem defi ko ba ñëw ki ci des mu door koo sant mu def la ca des dundin woow yi lañ war a dund ci diggante bi moom ci jëmmi boppam nag su fekkee magum jëm la nekk mu kàllaf euh, mooy xalaatal boppam xool ñu ko sant lan moo ci gën a jàmp moo xam li jóge ci yaayam la moo xam li jóge ci baayam su ko defee mu wax ak ñoom moom waxi nit wala naa eh, li nga ma sant day yow fas naa ko yéene def waaye nag kiitam lii mu ma sant moo gën a jàmp xaaral ma defal ko nii ba pare su ma wëlbatikoo ñëw ci yow defe naa ne su fekkee ñi muy jëflanteel aw nit lañ loolu moom duñ ko gàntu ala kulli xaal faaw si benn waajur yi doon ñoo xam ne ñu am xikma lañ xam ni ñuy jëflanteeg seen doom wala su loolu amul faaw seen doom moom mu jéem a góorgóorlu ba am xikma xam nu muy jëflanteeg yaari waajuram bu mu ci gàntu kenn waaye na leen dig ne yaar yëpp dana ko def waaw waaye nag faaw ci benn lay tàmbalee nag faaw dana am lenn lu mu tàmbalee door a mën a def la ca des waaye mëneesut a def lépp ci wenn waxtu wallahu taala alam macha allah barakallahu fikum jërëjëf cheikhana cheikh bi kii dafa am ñaari mbir daal yu ko jaaxal benn bi nee na euh, dafa dégg ñu ni booy julli dangay xool bërëb bi ngay sujjóoti say bët foofu nga koy foofu nga koy euh, def mu gis tamit walla mu dégg ñu ni tamit booy taaya say bët danga koy jëmale ci sa ci say baaraam mu ni nag euh, ñaar yooyu dañoo wuute wala dafa am déggin boo xam ne moom lañ ko war a déggee. alhamdulilah ok wér na ne kuy julli da ngay xool fa ngay sujjóot ndax nga bañ a sànni say bët muy dem di sori rek sama xel di jaxasoo waaye wér na ne it kiy taaye na xool baaraamam su ko defee loola euh, doon na ay mbir yoo xam ne doonut contradiction bu dox seen diggante maanaam. yaari ndigal yooyu féeroowuñ benn ñu dégge ko ne kiy julli mboolem julli gi nay xool fa mu si joote lu dul su fekkee ne mi ngi taaya su boobaa xool baaraamam wala ñu déggee ko ne yaar yooyu dañoo mën a ànd ndax jamono yi muy xool catul baaraamam ay bët du yem ci catu baaraam waaye day xool baaraam yi di xoolaale fi muy si loolu yi lu ci nekk mën naa nekk nekk aw déggin ne wu wér la ala kulli xaal lu mën a nekk la naam waffaqakum albaari jazakum allahu xayran cheikhana cheikh bi kii benn cheikh la benn ustaad la benn imaam la bu ñuy wax Aboubacar Seck nee dafa am ñaari mbir daal yoo xam ni jaaxal na ko mu bëgg ci xam-xamu sharia bu leer bu ci mën a am tegtal sax nee na dañuy wax ni euh, imam bi lii sunna mooy bu duggee rek def dem direct ca minbar ba bisu àjjuma waaye tamit nee na ay ngëneel yu bëri yu bëree bëree bëree rot ci teel dem jumaa mu ni nag imam ba moom dañ ko caa seppee wala daal na muy def. wér na ne imaam bu duggee bisub ajjuma rek day daal di yéeg ci minbar ba ndax ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam noonu rek la ko daan defee wér na it ne ku tedd kookee sallallahu alayhi wa tudd na ay ngëneel yu réeréeréer yi ci teel a dem ci jumaa bisub ajjuma. waaye ñu xam ne ci jëfam moom en tant que alayhi salaatu wasalaam mooy yonent ba waaye moo doon imaam ja itam nag jaadu na imaam yi ñu xool nam doon def ñu di ko jëfe mooy jekki ba waxtu wa jot mu yéeg minbar ba su ko defee daal di ab xutbaam gannaaw buñ noddee waaye bokkul ci am njàngaleem imaam dikk dugg ci biir sàppe yi toog ci biir jàkka ji nekk ak nit ña moo xam day naafi moo xam day def leneen ba waxtu wa jot mu daal di yéeg ca kaw minbar loole loolee bokkut ak ni ko jàngale woon te daan ko jëfe diir li nga xam ne nekk na Madina di xutba waaye nag su fekkee ne imaam am na benn pakkuusam ci biir jàkka ji boo xam ne mën na fay teel a ñëw te du tax mu jaxasoo ci biir mbooloo ma man faa def ay julleema ci ma ci yëf yëfaanam ba waxtu wa jot mu door ne tëll ca minbar defe naa ne loola it du doon luy dàqonte ak loolu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dañ duñ fàtte mukk ne ay naafilaama ci julli yoor yooram ak waxtu àjjuma daawul toog loxoy neen waaye ci biir néegam la daan nekk ba waxtu wa jot te néegam bu doon tey yii dangay wax ne mooy pantere bi toq ci jàkka ji ndax noonu la meloon néeg Aïcha bi nga xam ne fa la daan faral di nekk fenêtre néeg bi boo ko ubbee ci jàkka ji lay ubbi kon jàppal ne fenêtre bu taq bu taq ci jàkka ji la foofee fa lay defee jaamu yàlla am bu waxtu wa jotee mu génn dugg ci biir jàkka ji daal di yéeg ci kaw minbar ba kon daal toog ci biir sàppe yi nekk ak nit ñi di naafila ka dafi mel loolo loola lañ miinul ci imaam waaye nag mën naa nekk fa mu nekk di fa def ay jaamu yàlla am ginnaaw ci jàkka ji la taq bu waxtu wa jotee mu génn yéeg ci minbar ba wallahu taala alam jazakum allahu xayran cheikhana bi laaj bii mi ngi jóge amerig kii mi ngi tudd Taala Gajaga nee na li muy laaj mooy koo xam ni danga amoon sa kër di ko tabax lañ nga yéene nag mooy boo ko tabaxee ba pare nga koy luye di ci am sa xaalis waaye nga dem ba ca biir daal ba muy bu a pare euh, sa yéene changé nga ni kii daal su ma ca paree du ma koy du ma ko def euh, kii du ko luye wala ma ciy commencé fu laa koy def ci euh, ngir borom bi subhanahu wa lépp lu cay génne rek ñu jox ko jullit ñi mu ni noonu yéene bi changé te yàlla te yonent bi waxoon innamal amalu bi niyaat ndax bu boobaa yéene boobu dina ko ci am wala du ko ci am wala yéene bu njëkk ba rek mooy continuer alhamdulilah yéene day dafa nekk ab terme boo xam ne ci mustalaxaat sharciya yi ci la bokk maanaam dafa nekk loo xam ne baat boo xam ne sharia moo ko fi indi moo tax fañ koy jëfandikoo mu dëppoog moom dëgg dëgg dëgg mooy fa jaamu yàlla ya jaamu yàlla yi bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ne innama al amalu binniyat wala innama al amalu lam ci jublu mooy jaamu yàlla yi waaye du caagi jëf yëpp yëpp yëpp la donte jëfi aada nag léeg-léeg yéene ñëw ca soppi ku mu doon ak jaamu yàlla waaye day fekk nag jëf ja doon ak jaamu yàlla wala yéene ja boroom yéene ca jaamu yàlla waaye su dul loolu nag tey des rekk nekk aada su boobaa nag la gën mooy ñu bañ koo tudde yéene waaye ñu tudde ko nar nar def nangam kon laajam boobu loolu daf fi feeñ bu baax a baax mooy di tabax sa kër bëgg soo ci noppee luye ko foofu gënul ñuy jëfandikoo fa yéene ndax yéene moom day fekk jëf ji doon ak jaamu yàlla wala la la nga ca fas loola doon ak jaamu yàlla waaye tabax gi ci boppam nekkul ak jaamu yàlla lu yéeg nekkul ak jaamu yàlla kon kooku kay danga naan dama naroon sama kër gi ba ma koy tabax dama koo naroona luye su ma noppee waaye ma dem ba ci diggante bi nag yéene ñëw nag yéene def ko waqf mu yéene ju baax ju am solo joo xam ne ju am njariñ la kon loolu yi muy laaj lu mën a nekk la lu baax la sax waxuma la di ko tabax yéene ko luye wala dara waaye kër ga nga dëkk sax soo ko tabaxoon ngir dëkk ca dëkk ca ba dëkk ca fukki at bu la neexee mën ngaa xëy xëy ne kër gi ma dëkkoon def naa ko waqf kon yéene ju soppiku moom jóge ca la gën a suufe jëm ca la gën a kawe te gën a baax loolu moom waroom xam-xame lislaam jooyoo wuñ ci ne lu dagan la yemul ci dagan waaye dafa gën sax naam waffaqakumul baari jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayra cheikh bi laaj bii mi ngi jóge Allemagne kii nee na dafay waaje a génne azakaam ci fan yi waaye nag nee na mm, foofu dañ leen di dagg ay taksi nee na dafa war a génne azaka bi avant ñuy dagg taxi yi wala da ko war a génne ginnaaw buñ jëlee taxi yi ba pare alhamdulillah su fekkee ne day e, taxe yi ñu koy teg doon na yoo xam ne faw day génn ci alal ji te xam na ne da koy joxe waxtu wi nga xam ne day joxe asaka fekk na taxe yi jot na su boobaa mën nañoo génne taxe bi àggal mu door a génne asakaam su fekkee ne it waxtu asaka bi moo jëkk jot te waxtu taxi yi jotagul waaye xam na nu taxi ya toll sañ na ko génne teg fee ba noppi door a génne asakaam waaye mu xam ne day génne asakaam ca mboolem alal ja ba noppi su taxi yi ñëwee door a jël la muy jël loolu moo ëpp tuyaaba ci moom moo gën a jëriñ it fuqaraa ya waaye nag loolu day àgg rek toll ci li nga xam ne dañuy wax ne lii de moo gën lu ñu sopp la su ko mënee def de loolu lu baax la waaye nag du ca gaañu itam ndax ginnaaw ay taxi da cee teg yoo xam ne mënu ko bañ a génne loolu moomu ko te kuy asakaal kuy asakaal da ngay asakaal li nga moom waaye nag comme noonu ñu ko waxee rek su fekk moom daal mooy tànn su fekkee tiyaaba ju bare bare bari la bëgg daal maanaam dafa bëgga def farataan ba noppi def loo xam ne naafile la na konte alalam na mu toll mu génne asakaam lépp bu taxe yi ñëwee wala impôt ya wala dara jël wàllam yóbbu fekk def na li ko waroon moom ci ñaari anam yépp bu ko neexee nag mu calcul la nga xam ne wóor na ko ne lii moomu ko ndax ay impôt la wala ay taxe la ndax mook bari jàmbur rek ñooyam konte ko teg ko fële ba noppi door a génne asakaam naam barakallahu fiikum jazakumullahu xayran cheikhana cheikh bi kii nee na moom day liggéey ci ay photocopie yu deme noonu waaye na jeesa nee na ab borom xarfa fuufa borom njabarkat borom xaatim ak yu demee noonu indi fa ab xaatimam bëgg eh, koo photocopie nee na ndax dina dagan moom mu photocopie ko alhamdulillah indi ab xaatim di ko photocopie lu qawlan waaxidan bum ko ko photocopie lañ koy wax di ko ko laaye biir moo di bum ko ko defal ndax kooku dimbalante la ci ak mooy yàlla xaatim moom koo ko fekk fu ne xamal ne moom njabar am na luñ jote su ko defee ko nit ko da koy daw bul ko ko photocopie mukk bu ko ci dimbali genn xeetu ndimbal borom bi tabaraka wa taala nee na wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan su ngeen di dimbalante da ngeen di dimbalante ci lu baax waaye bu leen dimbalante ci loo xam ne ak mooy yàlla la naam jazakum allahu xayra barakallahu fikum cheikhana cheikh bi kii nee na mi ngi ci weeru décembre nee na nag Sénégal yu yàgg daal euh, tubaab yi not nañ ñu ñu di leen roy di leen topp ba nga xam ne daal dafa mel ne ci seen deret yi la nekk 31 décembre ak 24 décembre fête yooyu daal nee na jullit ñi boo nekkee senegal danga doo mel ne sax doo ko xàmmeek réewum réewum jullit bu ñuy wax wala réewum lislaam te nee na nag du dégg sax ñu bëree bëree bëree bëree bëri ci kilifa diine yi ñu war ci di wax saa su nekk walla ñu tere ko seeni taalibe nee na fet yi nga xam ne yeneen diine ko moom ñu leen ci toppandoo di ci ni dañuy màggal juddu diw nee na loolu lan mooy ci position lislaam wala sax lan nga ci conseiller la wax jullit yi nga xam ni ay jullit lañ nekk fii ci biir Sénégal alhamdulilah xeet yi nga xam ne ñooy am nit ñi di ko feetoo moo xam dafa aju ci diine lislaam te saxut wala mu aju ci jeneen diine ju dul diine lislaam nekkul ay feet yoo xam ne sharia al islaamiya xam na ko wala mu saxal ko jullit bi nag lépp loo xam ne sharia al islaamiya saxalu ko xama xamu ko loola sori ko ak maandu ca loola moo ko war ak noppi ca su gisee mbokkum jullitam mu cay dugg mu laaye ko biir ne ko lii bul ci dugg lu bari nag ñàkk xam gi tasaaroo ñàkk xam xam-xamu sharia ci sunu barab yi ak doole joo xam ne ñi nga xam ne ñoo moomoon wala ñu coloniser woon suñu réew yi am nañ ko fi loolu moo yóbbee lu bari ci jullit yi dañuy dem ba seenug nooy àgg ci xàmmeetuñ lu bokk ci seen diine ak lu ca bokkul soo waxee nag ñu ne tolérance waaye tolérance bokkut ak loolu tolérance mooy xajoo keneen may ko jàmm muy dund la mu gëm di ca woote sax bu ko soobee yow itam li nga xam ne moom nga nekk te jàpp ne mooy dëgg nga di ko dund di ci woote di ci woote ci na nga xam ne noonu la la ko sa boroom sante loolu rek lay lay firi waaye firiwut leneen defe naa ne lislaam moom moo ëpp ñëpp tolérance ndax diine la joo xam ne dem gëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak gëm alquran ak gëm yàlla du mat mukk lu dul jullit bi dafa gëm ne yonent yi yàlla yebaloon te isa ak muusa bokk ca li fee gëmu leen ak ngëmam du wér kon tolérance foofu la mën a gëm naa yàlla gëm saab yonent gëm sab yonent yow nga ne gëm naa yàlla gëm saab yonent weddi sab yonent yow kon bu ñu ñuy comparé ci wàllu tolérance danañ gis ne jullit bi moo ëpp tolérance keneen ku dul moom loolu muy wax ne nag kilifa diine yi waxuñu ci kay imaam yi ñu ngi xutba jàngalekat yi ñu ngi jàngale waxkat yi ñu ngi wax waaye nag eh, lu dem ba saxin nit ña tàmm ko génn ca dafa gaawawul noonu waaye rek ki nga xam ne jottali ak yeete moo ko war nay jottali rek te yeete qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhana allahi ana min almushrikin ad'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن yoon woowu lanu alquran tegal moom lanu tëralal nu war jaar muy di woote di dialogue di leeral diini ji jikkoo ko ci pas-pas ak ci jaamu yàlla ya ak ci jëflante ya su ko defee loolu mooy doon woote bi gën a gaaw ci ñoddi nit ñi jëmale leen ci diini lislaam mooy gën a gaaw itam ci ko xamul woon mu xamal ko naam baarakallahu fiikum cheikhana jazakum allahu xayra cheikh bi soxna si nee na moom day xam na ni nit ki matu ba pare deret ji génn ci moom deretu sin boobu dina tax euh, du julli du woorit ndax euh, laabul waaye nag nee na moom yeesaa avant muy am doom day gis deret day gis ndox jublu ci nag nee na ci bis bi nga xamee ci lay mato yi demee noonu mais nee na yeesaa quatre jours cinq jours une semaine avant muy mato day tàmbali di gis deret di gis ndox ndax bu boobaa euh, day jàpp julli wala boobaa day arrêté julleem alhamdulilah dereti wasin niñ koy définir mooy deret ji nga xam ne day dikk gannaaw boo xamee ni jigéen ji am na doom maanaam la nekkoon ci biiram génn na loola atte yi nga xam ne danaan dana toog ñeent fukki fan su fekkee deret yi dafa continuer atte boobu ci bim amee doom ci la tàmbalee waaye nag ñu xam ne deret jooj yi am na lu ko mën a jiitu maanaam mën naa yónnee ndaw loo xam ne fekk na doom ji ju doogut moo tax saa boo xamee ne tàmbali naa gis deret akum ndox muy génn moo xam ne ngir yombal yoon wi kay génn war a jaar la su boobaa moom na arrêté ak julli ndax la gën a bari mooy du soree ak fa muy juddoo waaye nag su fekkee dafa bëgg a yàgg nag di mat ay fan comme noonu mu ko waxee ci laaj bi li feeg mu ngi génn du julli waaye saa bu arrêté nag day daal di dem sangu nag julliwaat bu dikkaatee rek mu arrêté waat ba keroog gone ga di juddu noonu rek la koy doxale wallahu taala alam jazakum allahu xayran wa waffaqakum lima fihi alxayr wa salah cheikh bi ci tontu yu leer yooyu ñaan yàlla subhanahu wa taala defal la tawfiq dunia wal axira defal la saadatu daarayni defal ñu ko defal ko mboolem jullit dugal ñu àjjana bi xayri xisaabin wala adab kon mbokk yi fii la ni yamandi ci seen émission alfatawa ba baneen ay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi gannaaw jéego yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ci at mi ñu génn yemook yóbbu askan wi ñu dem amal seen umra ak ziar seen agence de voyage bi ngeen taamu di Safir service delsiwaat na di beesal kóllëreem ak yéen ci dem amal umra ak ziar fële ca Medinatul Munawara li ni mel ñu tëgg ko ci ay départ yi nga xam ne jàpp nañ ko ci weer wu nekk seen kër gi di Safir service di leen gunge ak ay guide religieux yi nga xam ne ne seen xam-xam dafa màcc ci wàll gi ni mel ay guide yu professionnel yéemut foofu ndax dina leen jàppal tamit ay logement di ay dëkkuwaay yi nga xam ne yu bakkane la fële ca Médine ak ca Màkka ngir ay xibaar yu gën a yaatu mën nga leen a jege fële ca Kër Massar unité 4 villa numéro de dendeek plateau médical Serigne Saliou wala nga jokkoo ak ñoom ci 77 116 78 78 mën nga jokkoo ak ñoom tamit ba léegi ci 126 71 71 seen kër gi di Saphir service di leen gunge tamit ci li nga xam ne dafa jëm ci jënd billet d'avion ba ci calcul ci li nga xam ne dafa jëm ci héritage canam dëppook ak l'islam Saphir service yéen la fi nekkal jafe-jafe ci dem amal umra ak ziar jeex na tàkk ak kër gi di Saphir service. Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ne da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier dangay soxla outillage ñun ñooy numéro ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ci Mbour ti Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à saint la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp ngeen ci ànd ak al ustaaz abdallah baaba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo bi di fatawa way leen di yónnee seen ay laaj si 78 179 27 59 78 179 27 59 fii si rajo Leeral FM 104.6. kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine. عمر يكفيني نشرت تعاليم